donc li may wax ci kanam la. Mhm. ndax morso bi euh, maa ngi ciy wax li nga xam ne comme tey jii nii euh, maa ngi nekk xale nekk ci yoon. Mhm. donc di liggéey. Mhm. Euh, maa ngi ciy wax naan yéen ñi may use xam naa leen du ma seen ngaaka. wax dafa jot wax ak yéen dafa jot lu ma génne ngeen yóbbu di ci comp di ci tedd ku ñu invité nga weddi du ngeen ma wow di ma sedd ñi may use xam naa leen donc morceau bu ma liggéey la. ndeysaan euh, dama ci dama ci wax rek euh, xam nga tey jii nii dafa metti mhm. nit euh, di créer ay mbiram. doo leen dénoncé. waaw waaw doo leen diw ak waaw du ma non non non du ma tax <laughs> ndax àdduna tey dox na dox boo xam ne. maanaam nit ñi ñi ngi gisal seen bopp. Mhm. man dama nekk ci benn milieu boo xam ne yàlla sunu borom moo ma defal li ma defal. Mhm. du sama mën-mën. ndax su fekkee ne boo nekkee ci côté di tëgg ci làmb ji moo xam feneen ak feneen boo tëggee sax. Mhm. boo xëyee gars yi ne ci musique bi moom la ñuy dugal seen cassette yi. xama ba ci sax des fois da nga ñëw ci jàng yi gis ñu koy tëggaat. koy tëgg wala nga dem feneen ak feneen rappeurs yi di ko rap wala leneen ak leneen comprendre nga mhm. xale yi di ko foyee ci mbedd mi. donc loolu dañ koy sante yàlla sunu borom. mais nag bu mu tax yow tey nga jël yëfu jàmbur. di ci dund di ci tedd di dem ba bitim réew di ci am lu nekk. Mhm. mais ki ko génne musoo ko ne a ah, saa yi lii day jël naa ko def naa ko sama album waaw. wala wala sax noo teel ci lii wala léegi lii. <laughs> donc yooyu yëpp ay geste la yoo xam ne. foofu laay waxee ko mhm. ndax àdduna fii liñ fi war a wax bari na. Mhm. te wax dëgg yàlla dafa rafet nit ki. moom yëfam yow jël nga ko avant tout woo ko. jël nga ko. mais lu mu lu lu gën a naas ci àdduna rek yow woo ko téléphone xamal ko ne ko wala nga ñëw ne ko ah lii de yaa ko créé mhm. nga nangu daal ndax nangu jël na ci ru bañ mhm. donc àdduna mhm. tey jii nii foofu la toll du pagaay rek moo fi mën lu nice di ko def ñëpp a ngi def lu nice am na mën nga ñëw si bàkk yi ngay créer hmm. eh, boo ma si mënee kebatul quelque ay quelque ba wala nga tuddal ma quelque bàkk yi ngay créer rek hmm. yi nga xam ne gis nga ni gars yi hmm. moom macha allah waaw waaw waaw dama koy damay damay damay damay yem ci ñaari bàkk rek ndax euh, dafa am bàkk boo xam ne bi ma koy créer dama ko def sama morceau ba pare soog ko tëgg muy ma fogoon ne yow man rek nga bëgg ndekete xale bi yaa ngi may nax bis dina ñëw nga bëgg a ñëw fekk ñëw weesu na bàkk boobu laa tëgg ratatal ki sad wura gi na cakin ki na car car cacat caki ki cacat ah caki ki ki ki ki boobu laa njëkk a tëgg gars yi jël ko modifié ko def ko nan biñ ko modifié dafa tombeek toujours Tapha Tine war a bëree ah. su ma juumul mook Balla Gaye la sax mu ne lu waay indi ma takk ci rip ah, tafaatin boobu loolu la wax moom dane ah, lu waay indi ma takk ci rip tafaa ci wax ji la yam léegi gars yi jël ko modifié ko takk ci rip hmm, takk ci rip ah la neex xaw ma takk ci rip gars yi def càcc ki kin yaa ngi comprendre donc dañu jël loolu dëpp ko indi ko foofu <laughs> ah, beneen bi ci des nag mhm. euh, bari na mën naa fi toog di la wax yëpp mais dama koy dagg rek caw sa xiir bi nii mhm. gis nga ñu bëri am na ñu ko def sax singal Euh, am na ñoo xam ne tamit euh, ñu ngi ci ñu ngi ciy wax di dem mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. mais euh, mooy li ma la wax rek caw saxiir xiir damaa toog sama benn copain bu ñuy wax baaba Sarr mm-hmm. donc comme man maa ñoom ñoo bokk fi ñu dëkk ma jóge suñu kër gu mag demoon fi ma logé bi may dox mu a ma dafa am benn affaire bu ma bëgg caw sa xiir dama bëgg caw sa xiir def ci lu garaawaay ma ne ko ah mu ne ne ko waa amul benn problème ci suur boobu donc ñu xëy xëy xëy yàlla dogal ama war a bëree bi mu bëree nag taxaw si télé bi daan ne euh, xiir gi mafia bi ku ci bokkul xiir gi dalay dal comprendre nga ah, donc bi mu waxee loolu comme man avant loolu maa ngi doon liggéey ci loolu mhm. yàlla def nag ma toog sama kër bi ma toogee sama kër daan di ko enregistré daan man Pagaye Dogo mafia bi ma bokk ku ci bokkul ku ne xiir gi dalay dal après si laa tëgg cakki kii kii cakki gimba ce ce cawraw rakkin bi ma tëggee bàkk bi nag maa ngi ko tëgg ci combat Ama ak euh, Papa Sow bi ma ko tëggee nag affaire bi dépassé ñëpp jël xam nga ku nekk ñii di ko def album ñii di ko def nii comprendre nga mooy li ma la wax rek sant waaw loolu sant yàlla la ndax du suñu mën-mën uh-huh. yàlla moom mooy xool nit ki rek am lu mu def ci moom uh-huh. peut-être day wax benn wax nit ñi bëgg ko uh-huh. wala mu tëgg benn tëgg nit ñi bëgg ko wala mu wóy dara nit ñi bëgg ko